la président Pastef maa ngi lay nuyu Ousmane Sonko maa ngi nuyu vieil Khalifa Sall maa ngi nuyu ma sœur di nuyu Déthié di nuyu monsieur le ministre d'État Habib Sy di nuyu tous les responsables du podium maa ngi nii wàccee aéroport de 12 heures waaye dama ne ñu invité ma ma ñëw bu ñu ma invité wulit ma ñëw. d'abord d'abord pour remercier Yewwi Askan Wi remercier leen ndax bi président Macky Sall yónnee. nee nañu fekkati suma mandat Yewwi Askan Wi dafa bañ voter contre le kidnapping de mon mandat kon loolu bu ngeen wootee tey war naa ñëw ba fii gërëm leen sant leen ndax nag as góor boo ko jàppalee ci combat li ko war mooy boo taxawee di combat ma ne ci xam mbir mi sànq am na ku ko li nga xam ne mooy aali këllëj te indi problème yépp problème judiciaire foqati ay mandat arrêté ay jeunes par centaine benn mbir rek président Macky Sall bëgg mandat troisième mandat ce pas monsieur le président ma fàttali la bi nga xam ne yaa waxoon yaa waxoon il a 12 ans waaye boobu président Abdoulaye Wade nga ko doon wax monsieur le président Macky Sall defaraatal toogaay monsieur le président bul topp ñi nga xam ne ñoo lay puus te bu yëf yi ñooy njëkk a daw. loolu nga waxoon il y a kon tey man moom laa lay wax aujourd'hui li nga xam ne nag mooy taxawaay bi war a am muy l'ensemble des démocrates te defe naa ne am na waxtaan woo xam ne tàmbali na vraiment sous la maestria de monsieur le ministre d'État Habib Sy ànd ko nag ak tous les responsables yi toog fii ñu toog waxtaane ko ne ñun ñëpp war nañoo ànd doon benn tous les démocrates ndax vraiment constitution bi dafa nul ne peut faire plus de deux consécutifs nul président Macky li la war li la war tey mooy nga bàyyi nit ñi ñu dem ci ay des élections libres inclusives nga jël vraiment lépp teg ci suuf lii sa warugal nga préparer élection yi des élections libres où tout le monde participera nga bàyyi xoxatal aussi nga bàyyi aussi xale yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi maa ngi nuyu l'honorable député Guy Marius Sagna mi nga xam ne aussi ci assemblée nationale vraiment jàmbar la fa kon loola doon kaddu di leen. leen gërëm ak votre permission nag comme le vol était long ma mën a dal di yeeweeku maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.